dagg après da ngay xool ñeneen parce que Babacar mii li mu dund man dund ma ko donte am nañ ay sacrifice ñu def mais koo xam ne dañ laa tëj biir prison sa soxna nekk si ay ay ay tolof tolof ngay dem di sikki sàkk ndax dinaa fekk nit wala du ma fekk nit donc loolu je pense que il a fait des sacrifices énormes donc dama bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax baax te loolu nag bëgg na si parti bi bëgg na si part bi mais bëri na si ñoo xamante ni ñu ngi seen biir kër kenn xamu leen moo tax Pastef na moo tax def erreur boobu ñu jàpp ne ñun ñi nga xam ñoo nekk terrain bi ak ñuy génn suñu xaalis wala ñooy manifester ñun rek la dañuy nax ñu bopp campagne bi ñu passé élection yi passé gis naa ñoo xamante ni kenn xamu leen nekk ñu si benn cellule dañ doon woote ne ma jafoo nekk ma ne nanga ma mu ne damaa bëgg a jël benn kaar benn bus fay ko pour ñu dem voté ji te loolu kenn xamu te bëri nañu ko fi def am na ñoo xam seen administration ñoo doon transporter ay nit ñuy dem voté ji benn cellule bokkuñu si benn donc mbir mi kenn du ko yemal si section communale kenn ko yemal si cellule mais dañ koy ci tra Sénégal gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp donc waa Grand Thiès ñun wóolu nañ leen incha allahu bi gëm naa ni di ngeen gañe bureau yi fi nekk yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp incha allahu rabbi leneen li ma ci bëggoon dolli mooy Ousmane Sonko dafa changé politique te képp koo xamante ni yaa ngi observé année yi di ñëw di nga xamante ni politique fi amoon day changé ñu nag dañoo def benn défi de défi bu rëy rëy Ablaye Wade dafa gagné ba mu gañee wóoluwul majorité mu dem def effet de transhumance xëcc ay ministre xëcc ay DG ñi nga xamante dañoo luubaloon sax ñu menacé leen ba ñu transhumé pour mu am majorité pour dem assemblée nationale Macky a reconduit le même système mais est gis ngeen kenn ba Ousmane Gagné lu mu wax dana képp koo xamante yaa ngi woon 24 mars avant avant 2024 toogal fa nga toogoon nga bàyyi ñu ak ñun suñu majorité loolu mooy wóolu na wóolu na sénégalais yi kon yéen wóolu na leen kon sénégalais kóolute boobu Ousmane Sonko loo xam ne ni ay nju njaaj la incha allahu rabbi duñ si dugg beneen bi ma bëggoon wax mooy may féliciter suñu rak suñu jarbaat euh, Thiemokho yaakaar naa ba mu ñëwee xam nga responsable euh, communal boo gisee jeune nu mu ñëwee rek da ngay yàkkamti ma ne ko nag nañu waxtaan ak waa cellule ba donc loolu moo tax tey may féliciter waa cellule Grand Thiès yëpp motul limee damay juum mais maa ngi leen di féliciter parce que vraiment c'est un ensemble yoo xamante ne vraiment ñu di féliciter section communale bi ma àndal parce que tey nee naa ñu respecté section communale bi ñu àndal moo tax di wax nag ñi ngi liggéey parce que Ousmane Sonko ba mu waxee bay ñun dañoo dem ci àll ba donte ñii ay fonctionnaire lañu mënal lañu seen bopp mais dañoo bëggoon a benn exemple mooy ndaw ñi nañ dellu si tool yi moo tax ñun biir Thiès ouest ñu wut benn hectare ne nañ dem bay tey bu ñëpp gis nañu toolu ñebe bi nga xam ne ñu ngi koy bay pour suñu mbokk séeréer yi donc loolu vraiment Ousmane Sonko moo ko jàngale donc ñu ngi si woo ñëpp ñëpp ñoo xam ne pare nañu bu dimanche incha allahu rabbi suñu tool bee nañ fa dem pour pour continuer di ko nemmeeku je pense que loolu la loolu Ousmane Sonko ko jàngale beneen bi mooy ñu ngi si ay cours de vacances yoo xamante ni tey def nañ si ay cours de vacances yoo xamante ni dajale nañu CI ba terminal CI ba terminal yoo xamante ni kenn fayul ñu woo suñuy professeur ñu jàngal leen te loolu Ousmane Sonko moo ñu ko jàngal moo ne xool leen lan ngeen mën pour seen askan te loolu xaaruñu yi nañu gën a jàpp si projet bi ñaar ñi dañoo war a jàppale de Ousmane Sonko ak Diomaye dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax baax te incha allah ñu ngi si raay bi donc pour bañ a guddal maa ngi dalalaat bu baax a baax suñu jarbaat Thiemokho di nuyu yaayam Daba Mara sama jigéen maa ngi ko tooñ léegi léegi ma ne ko comme sa doom ñëw na da war a ñëw moom mi ngi nekk ñoo nekkandoo conseil municipal ñu nekk fa nekkin bu rafet donc ñu ngi koy nuyuwaat de passage di nuyu vraiment tous les responsables xam naa ku lim da ngay juum mais ñu ngi kontaan si daje bi di wax ni focus ci élection yi di ñëw incha allah rabbi ñu fexe beneen bi am na ko ko wax léegi-léegi ñu ne benn tànk la des na de bu ñu gañee élection yi dañuy accompagner le président Ousmane Sonko dañ koy accompagner ba incha allah fépp foo xamante war nañ fa dem ñu dem fa parce que jeexagul xaajagul jeex léegi la gën a metti sax parce que nit ñaa ngi naan frustration xoolee nomination yi xoolee ñii ñu nome parce que Ousmane Sonko bu doon politique politicienne la ay militants lay nommé militants yëpp lay jël ne leen diw kaay ma dugal fii diw kaay ma dugal la fii mais dafa loolu mais ñi nga xamante ñoo gën a xaarañ mu teg leen fa deful affaire par parlo donc loolu na ko xam naa ne Cees waaye ñu ngi koy observé 2019 Ousmane Sonko dafa ñëw fi def benn campagne ñu am résultat yoo xam ne xawul demee noonu mooy mooy présidentielles yi xawul woon deme noonu parce que nag nit ñi dañoo waa Thiès dañoo dese woon yaakaar ci ki fi nekkoon parce que mi ngi woon opposition moo tax ba waa jooju tourné waa Thiès waaye tourné complètement ci moom jublu si Ousmane Sonko xam ne mooy yaakaaru moo yaakaar askan wi donc Thiès loolu ñu gëmoon ba def ko nañ continuer di di ko def incha allah rabbi ba ba résultat yi nga xamante ni amoon nañ ko ñu mën koo doubler te yaakaar naa li ma gis fii si Grand Thiès yaakaar si ko si Grand Thiès xam naa incha allah dinañ ci egg. dal xamuñu leen mais ñii ñoo leen xam kon Thiès yéen a xam kan mooy Ousmane Sonko yéen a xam kan mooy Bassirou Diomaye su dee damay dugg ci cadre kii nga xam ne tey moom laa àndal euh, muy suma kilifa ci parti bi yàlla dogal euh, man ma nekk le coordonnateur au niveau de ma commune mais en même temps. nekk le vice cordonateur de la JPS au niveau de Pikine moom tey moo ko fa taxawal nekk la coordonnateur man ma topp ci ginnaawam waaye dañu ne ñun ndekete xamuñu sax ki ñu yàlla booleel à Pikine il a que àdduna dox ba ñu xam dëgg-dëgg kan mooy Babacar te loolu li tax ñu xam ko mooy ay prise de position wam mooy engagement wam mooy détermination wam mais surtout mooy constance bi mu àndal ci jàppale Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye parce que bu fekkente ne tey le président Ousmane Sonko dafa taxaw ci kanamu mbooloom yépp mu ne le premier jeune bi dugg ci biir parti bi mooy Babacar Ndiaye mi toog parce que jamono boobu mu ngi nekk étudiant pour ñi xam Pastef ñu ngi ko créé en janvier 2014 à l'université Cheikh Anta Diop période boobu moom mii moo nekk étudiant àndoon ko ak beneen frère bu ñuy wax Ibrahima Thiam ñoom ñaar ñoo ŋànk li ñuy wax la JPS national ànd ci ak ku mel ni Ndeye Fatou ak ñeneen ak ñeneen wër 45 départements yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal mais également au niveau de la diaspora pour fépp foo xam ne ndaw mu ngi fa pour bëgg a intéressé wu ci parti Pastef ñu mën la ubbil ba nga mën a dugg ñëw bokk ci projet bi kon yaakaar naa ni loolu bu amee ñu jóge foofu la président ne ah man de duma ci yem Babacar mii ni ma ko gisee gëmatuma sax muy wax waxu GPS mais tey li mu ci war a def comme preuve def na ko dama koy jële foofu noonu boobu may fàttali ne Babacar mu ngi ci prison Ousmane Sonko consulté ko ne ko Babacar su ma sañoo da ngay génn ci GPS nga ñëw nekk la conseil spécial sama côté mu ne ko man aw ma dara lu may wax aw ma dara lu may bañ aw ma dara lu may nangu benn affaire rek laa xam moo yow yaay suma kilifa fépp foo ma soxlaa dinaa fa ñëw liggéeyal la Ousmane Sonko jël ko def ko son conseiller teg ko ci wetam. bi loolu amee Babacar yàlla dogal avec discours bu am solo bi nga xam ne ma sœur mu ngi koy fàttali nga xam ne c'était un discours révélateur parce que tey doomu aadama yu bari yi nga xam ne umpale woon nañu ko discours boobu moo tax ñu xam kan mooy Babacar Ndiaye parce que nag wax dëgg yàlla kéwél du tëb doom jëbët te Babacar Ndiaye bu waxee nii xëy na dafa am ñu ciy soog a jot waaye ñun ñu ànd ak moom dama koy wax souvent ne ko soxlawuñu di gis Ousmane Sonko parce que su ma jàkkaarloowee ak sa kanam gis naa le président Ousmane Sonko. bi loolu jeexee bi ñu tollee ci former gouvernement le président de la république soxla ko pour bëgg ko indi teg ko ci wetam ba pare mu am jafe-jafe bu ci amoon parce que la doon yéene président de la république mooy jël ko def ko ministre de la république parce que mérité na ko te liggéey na loolu ci parti bi. waaye le président Ousmane Sonko ak cofeel ak yàggal liggéey bu mu am ci Babacar ne ko man kat su ma sañoon nga ñëwaat toogaat suma wet Babacar delluwaat ci kaddu ba nga ko waxoon ne ko amuma lu may bañ amuma lu may nangu fépp foo ma ne fii laa bëgg ma toog fa laa ñëw toog ànd ak yow liggéey ba looloo tax tey mu nekk la conseil spécial nekk la conseil personnel du premier ministre premier ministre bàyyiwu ko. àndaat ak moom ne ko yéen ñi nga xam ne yéen a bokk le département de Pikine dëgg la ay jàmbaar ñu ngi fa waaye nag jàmbaar dañ koy ràññee ci biir jàmbaar yi te Babacar Ndiaye nag jàmbaar la ci suñu biir ba moo tax ay kilifa ñu ngi biir pikin mag ko fuuf nekk jàmbaar ci parti bi waaye le président Ousmane Sonko moom mii malgré son jeune age moom la wóolu jiital ko ci suñu kanam mu nekk suñu tête te incha allah gëm naa ne du nekk département bu Pikine rek. mais député wu Sénégal lay doon parce que ku xam liggéeyam xam engagement wam xam bëgg-bëgg bi nekk ci moom waxuma la Thiès waxuma la Pikine mais Babacar c'est un Babacar qui est un Babacar national kon waa Thiès encore une fois ñun seeni doom lañu ñu am yéene pour projet bi ba tax le président Ousmane Sonko wóolu ñu jël ñu jiital ñu ci ay liste nañu dem leen ngeen représenter Pikine ñun ñu jël suñu yaakaar suñu confiance lépp jox ko jëmm ji muy Babacar kon encore une fois Thiès maa ngi leen di ñaan ñun ñëpp nañu booloo ñaanal Babacar parce que moom bu soree ñun ñëpp incha allahu rabbi dinañ ci gis suñu bopp. parce que Grand Thiès nag bëri na ay cellules yu fi nekk am na cellule marché Grand Thiès suñu frère Abdou Seye moo ngi fi mooy waa marché Grand Thiès am na cellule Grand Thiès bi nga xamante ni fa laa dëkk Grand Thiès jàkkay Tukulër am na cellule Grand Thiès Concorde suñu frère Makodou moo ngi fii cellule ñetti euh, kàdd suñu frère El Hadj Niakh moo ngi fii toog kon donc Grand Thiès na ay cellules ñu am Grand Thiès am fi deux centres vote muy dix-huit muy Aliba ak Thierno Siré Limane ñun ñii ndaw ñi ñoo nekk ci centre de vote bi gañe fi ay kilifa gañe fi ay ministre gañe fi ay candidat présidentiel ñun ndaw ñi nga xamante ni wax dëgg la ay ndaw yu xeebu lañu ba nit ñi ñëwee di jël seen xaalis di dugg si école bi si élection présidentielle di yëkkati xaalis di joxe ñun boobu ñooy wax ak mag ñi di leen conscientiser li waral ñu war a woteel jomaay mag ñi nag ñoo ngi leen di sant ndaxte nit ñi dañu naan Ousmane Sonko xale yee ko fal waaye mag ñi daf nañ ci seen kàttan man mi newoon mandataire fii xam naa ni mag ñi dañuy ñëw ne la ah ba mooy bulletin ñëw apporter. seen contribution si falinu Ousmane Sonko ak Diomaye parce que xam nañu mooy projet boo xamante ne mun na jëmal Sénégal si kanam kon donc ñun ñoo ngi wax mag Grand Thiès yëpp seen i doom seen i jarbaat ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm si ndam bi nga xamante ni jox ngeen ñu ko si confiance bi nga xamante ni tamit jël ngeen ko teg ko suñu loxo Grand Thiès nag yàlla may ñu si investiture yi mooy suñu sœur Fatima Zahra mu bokk cellule Grand mu nekk coordonnatrice bi man ma nekk coordonnateur bi moom yàlla def ñu fal ko si le investir ko si liste nationale bi à la quarante deuxième ñu leen wax nag Grand Thiès c'est pas Fatima Zahra kese amoon suñu beneen sœur bu nekk fii cellule tamit euh, Concorde boo am moom it boole ko si investiture yi kon nag ñun Grand Thiès dañuy xool suñu tànk tubéy xeex pour fal ñooñu pour fal projet bi vote bi nag li ko waral mooy il faut que nit ñi xam ko président Diomaye lu tax mu tas assemblée bi ndaxte mënul liggéeyal ñi nga xamante ni ay kaña loo gas loo defar ñu ñëw yàq ko ñu tas assemblée pour teg fi assemblée boo xamante ni tey nañu voté woon noonu jomaay cinquante quatre pour cent war nañoo mën koo voté à soixante pour cent ndax lan ndax projet bi nga xamante ni am nañ ko pour ñu doxal ko ba mu leer nañ faw ñu jox ko majorité à l'Assemblée nationale loolu kese moo tax ñuy laaj masorité bi masorité bi nag suñ ko joxee bépp joytu boo xamante ni sénégalais yaa ngi koy joytu incha allah jàpp naa ni muy wàllu emploi muy wàllu dundin muy wàllu munti doon muy pétrole muy gaz muy lépp loo xamante ni sénégalais am nañ ko suñu amee majorité à l'Assemblée nationale je pense que loolu yëpp dinañ ko mun a doxal ba réew mi naat ba lépp loo xamante ni yi bëgg nañ ko ñu am ko kon donc loolu noonu dafa a am man dama ne Abdoulaye Wade ba mu jëlee réew mi 2000 en 2001 dañ ko jox majorité Macky Sall ba mu ko jëlee en 2012 dañ koo jox majorité jël nañu réew mi nag 2024 c'est normal ñu jox Bassirou Diomaye fay majorité pour ñu won ñu lan la bëgg liggéey ak liggéeyam fan la ko bëgg a yóbbu kon loolu demande la boo xamante ni tey sénégalais bu si ne war nga ko mën a def sa yitte di leen wax nag suñu coordonnateur bi Amadou Mbaye Dia sonn na si parti bi xeex na si guddi xeex na si bëccëg li mu mun a mobiliser Thiès amul kenn ku ko mën a mobiliser ma damay wax tey tax ginaar kenn nenu ma li may wax dama koo gëm dama ne Amadou Mbaye Dia mii bañ ko investir bañ ko investirul daf ko suppléant bokk naa si ñu taxaw ne nañu génn def conférence de presse Mbaye Dia moo ñu mën a génnee moo mun a mobiliser commune bi moo mun a engager commune bi ñun ñu ànd ak moom liggéey soo fi toogee nag dafa mel ni Ousmane Sonko moo fi toog pour que nga wax Ousmane Sonko ici à Thiès kii moom mbay Dia mii moo fi liggéey suba ngoon guddi bëccëg mooy mobiliser jeunes yi moo mën a tax nit ñi bàyyi seen yitte ñëw suñu keneen woowoon amaana mun nañoo bañ a ñëw mais moom heure bi ñu woowee ñun dinañ ñëw pour que loolu président de la république yëg ko euh, Ousmane Sonko yëg ko ñu xamee ni à Thiès tey Mbaye Dia il fait euh, l'unanimité ici à Thiès Mbaye Dia c'est quelqu'un de social Mbaye Dia heure bu ne moo ngi si tool yi moo ngi si lu ne dama ne woon nag lii dama koy wax rek pour nit ñi xam ko kam mooy Mbaye Dia yéen waa Grand Thiès ngeen xam kam mooy Mbaye Dia kii Mbaye Dia mii toog pour ngeen xam ko heure bu ne moo ngi si yite parti bi te lépp lu mu am da koy indi si base bi. beaucoup monsieur Coulibaly ñu ngi euh, rafetlu bu baax a baax a baax si ni ñu associé si meeting bi. meeting de ralliement di wax bienvenue à notre frère patriote euh, monsieur Thiemokho donc euh, di la wax dalal ak jàmm di la wax ni euh, Pastef les patriotes ki ñëw tey ak ki ñëw démb yéen a même bokk même rang donc l'essentiel c'est d'être engagé et déterminé donc donc ñu ngi lay waxaat bienvenue di rafetlu bu baax a baax le cours d'histoire bi nga xam ne notre frère patriote aadama Fall def na ko mu ama am solo loolu macha allah et je pense que ni euh, ñi toog fii yëpp ci assistance bi ils ont compris pour l'essentiel lan moo tax ñuy xeex parce que euh, 24 mars en fait nguur gi dañ leen jox genn wàllu pouvoir benn tànk lañ leen jox ñu téeku mu des beneen tànk beneen tànk bi c'est au soir du 17 novembre incha allah lañ leen di joxaat beneen tànk bi ñu am deux pouvoirs yi mën a doxal li ñu bëgg a doxal gars yi nga xam ni saay-saay yi nga xam ni Macky Sall da leen a làq door a dem ay loi la leen làqee il faut ñu jot ci assemblée bi pour mën leen teggi génnee leen fañ leen làq mën a yoon mën a dal seen kaw te loolu il faut ñu jox assemblée il faut ñu jox la majorité absolue à ce régime incha allahu rabbi je ne vais finir sans pour autant ma jaajëfal le coordonnateur Amadou mbay Dia avec euh, toute son équipe macha allah ñëpp xam nañ euh, boobu ba tey mustataay boobu ba tey mu ngi ci le projet euh, di rafetlu bu baax a baax a baax a baax le conseil spécial auprès du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye monsieur Babacar Ndiaye avec son fameux propos li nga xam ni moom la doon wax keroog bi ñëpp jaaxle mu ngi band loxo bi mu ngi band tànk euh, bopp bi mais euh, il parlait avec le cœur man c'est après ça que j'ai su que ni dañ ko jàpp mais propos yooyu mu tenir bokk na si vraiment li yóbbu projet bi ba mu aboutir parce que ñëpp jaaxle woon mais quand il génn leen ngeen xeex on a su que ni dañoo waroon xeex te moom lañ def ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax ba mu mottalee yéene yi ba ñu agsi fii ñu xam ni sa Sénégal ñu ñoo ko bokk te duñ ko seetaan on a besoin de se libérer de ce joug de colons colons laa koy wax parce que ba tey ñoom ñu ngi jàppee ni ils nous regardent de haut mais loolu day jeex réew mi ñoo koy moomaat ñoo koy téye suñu loxo Sénégal c'est pour les Sénégalais, Inch'Allah Rabbi. Et on fera le maximum pour donner au soir du 17 novembre la majorité absolue à ce régime. Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. colonisation bi jeex ñuy dund tey ci li ñuy tudde néocolonialisme c'est toujours le même système d'esclavage et d'exploitation sauf que ñun ñoo leen di dundal yàlla dogal bi ñuy jeexal indépendance rek ay kilifa ay ay ay ay ay ay gaynde jug taxaw pour xeex loolu yàlla dogal ni xeex boobu sottiwul mën nañ ci lim ñu bëri mais ki ñu ciy gën a ràññee rek tey muy suñu maam Mamadou Dia jamono di dox ba am ay nit yu jugaat bëggaat xeexaat loolu yàlla dogal ñu am privilège yu te ki porte combat boobu muy la président Ousmane Sonko ñun ñu am privilège yu fekke ko kon bu ñu fekkee jataay boobu bu ñu fekkee combat boobu ñu nga xamante ni tey c'est un combat déterminant ñu tekk ci benn phase bi nga xam ne le 17 incha allah la ñu war a commencer vraiment concrétiser cette concrétiser fin de euh, nu ñu koy xeeti commencement victoire comba boobu dama sax victoire mais euh, commencement wu euh, le moo m'échappe comprendre ngeen fi may waxee ci le 17 la ndax bu ma defee liaison colonisation ba léegi. damay wane ne ñun tey suñu combat bi ñu dugg nii muy sa combat la combat souveraineté la combat de libération la combat de moomaat suñu bopp la combat de jëlaat suñu ressource téye ko jëlaat suñu alal téye ko jëlaat suñu réew téye ko jëlaat suñu diine teye ko te lii nii ñuy jëm nii ci le 17 mooy assemblée nationale bi ñu war a joxaat le le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar fay à travers le président Ousmane Sonko moo koy jëmal parce que fal nañ leen jël leen teg leen ci nguur gi mais ku ne xam na ni gouvernement mënoo dogal tant que amoo assemblée national li nga bëgg bokk mënoo koo dogal tant que amoo assemblée nationale. donc muy aspect bu déterminant te doon du doon lu yomb ndax dañuy fàttali rek ñi nga xamante ne ñoo ñu dominé woon muy colon yi ñuy lekk ñi ñuy dundee ñun dafa am système bu ñu fi toogee bi ñuy dem ñoom dañ fi toogoon di ñu téye. bi ñuy dem dañoo jël suñu moroomu nit ñu ñuul ñu ñuy woowe ay affranchis jamonoy colonisation affranchis yooyu ñoo fi toog ba tey di leen liggéeyal moom la ñuy wax système bi mun nañ koo tënk rek tudde ko système bi la ndax système boobu nekkalu fi sénégalais yi ñoom la fi nekkal ñu nekk ay nit ñu ñuul ñu ay ay nit ñu ñuul yor der yu ñuul mais ci intérêt nasaraan bi lañuy dox ba tax na ñoom ñi ngi nekk di def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo du ma wax liggéey bu ma waxee am solo waxuma am solo am solo am solo mais damay wax ne ñoom ñi ngi xar seen tànk tubéy pour ñun li ñu bëgg a libéré ñu ne ñoom duñu libéré wu. ba tax na tey toutes les parties yi nga xamante ne ñoom ñoo doon dundee ñoo doon jàppale tubaab bi ñuy dundee Sénégal ñoom ñëpp dajaloo nañ def benn Occident ngemb leen ñu fas yéene taxaw jàkkaarloog ñun. mais loolu tuuti ñu ci parce que xam nañ ni peuple sénégalais bi yeewu na beneen bi mooy ñeneen ñi ñu jar a bàyyi xel. mooy entre guillemets les soi-disant journalistes mën nañ cee citer ay ñoom Cheikh Yérim Seck cité si genre nit ñoo ñëpp ñoo ñëpp liggéeyaluñ Sénégal Occident la ñuy liggéeyal ñoom tamit ci affranchis yi lañ leen di boole. mën nañ ci boole aussi ay ñoo xamante ni kenn gisu leen mais dañuy yor euh, parce que jam damay fàttali damay expliquer benn affaire rek que ni France dafa génnee benn système bu bees pour mën a xeex mën a téye Afrique dafa nommé ay général yoo xam ne. dañoo créer benn genre réseau informatique pour di ñu jaxaseeg suñuy moroomu africain di ñu jaxaseeg suñu biir pour ñu mën a booloo nekk benn kon ñun tey loolu nañ ci bàyyi xel te xam na ne suñu ennemi du kenn ku dul l'Occident mooy suñu enemi te suñu ennemi du kenn ku ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy téyal tànk Occident fii biir Sénégal nga xamante ni dañ leen di ko dañ leen di dañ leen di désigner à travers les partis politiques yi fi nekkoon mooy parti yi nga xamante ni dañ fay nokk pendant des années plus de xaw ma ba depuis indépendance ba léegi di liggéeyal Occident nañu comprendre ne tey képp ku fi taxaw di laaj baat ku ko jox baat yow yaa ngi prolongé njaayum jaam mi nga xam ne suñuy maam yañ ko téye woon di ko jaay ba léegi yi nga xaman ne yaa ngi koy prolongé. ne ak suñuy carte di convaincre sax ñi nga xamante ne ay muuma lañ dañ naan kan mooy kooku ñu ciy daw di ci ànd ak ñoom Vieux Joob ñoom doyen Matar Ba. ak ñeneen ak ñeneen muy ñoom frère aadama Diawara Amadou Ba Marema Ndiaye su ma limee juum ak ñi fi toog ñëpp nag ñuy jaajëfal ñëpp du ma guddal di wax rek leen jigéen ñi rafetul naa seen teewaay parce que nee nañ réew su doxee xale ya ñoo tax mais nag yan xale xale yu seen loxo set nga xam ne dinañ mën a bokk bokk ak mag mais nag xale yoo ñu leen di teete ay jigéen la ñuy doon jàmbaar yi fakki tëdd ñoo xamante ni duñu ñu toog tëdduñu lépp lu leen war mooy Sénégal changé parce que seen doom yooyu ëllëg bëgg nañu doon dara ñooy jigéen ñii fi toog représenté ñëpp di leen jaajëfal tàccu leen seen bopp góor ñi nag kenn demul ba leen parce que mënoon nañu suñu jigéen nañ toog ci kër ga di ñu toggal ñu ñuy wuti di ñëw mais dañu nañ ànd parce que ñoo moom Sénégal ñoo ko war a changé dog bu mu jaam te tey ci loolu lañu ñu nekk jaajëf góor ñi fi teew du ma guddal nag ndax guddi na ndax la frère Babacar am na yu bëri yoo xam ne mu ngi koy xaar kon di leen wax dalal ak jàmm di dalal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. tey ñu bëri danoo am objectif bëgg bokk ci projet bi loolu du ma ci dugg du ma ci xóotal dinaa bàyyi après suñu kilifa yi àgg ci mais lu may laal as tuut rek laay wax ndax tey bu ñu la fekk see ñëw ci sa cellule yoon la nga mën a wax li nga xam ne tey moo nekk sa xol ak moo nekk sa cellule. mais mënu wax nag ba bàyyi te remercier wu ma sunu coordinateur Salimata Dieng di ko ñaanal fal bi ko fal mu jig ko te yàlla may ko mooy mu jàll ak mboole mu nit ñi nga xam ni ñoo dëkk Grand Thiès di Zahra buñ ko limul dañuy ju dañuy dañuy doon loo xam ne daal du du ñu gënal mais ñoo ngi ñaan képp koo xam ne rek dëkk nga Thiès région de Thiès moo xam département de Thiès moo xam département Fandène képp ku ñu tabb rek ñu ngi lay ñaanal yàlla may la nga jàll bokk si ñi nga xam ni ñooy représenté député yi si assemblée nationale pour mun a liggéeyal Sénégal projet bi nga xam ne nag actuellement ni moom la jublu di ñaan école bii ñaari élection yi du jàll yëpp ñëpp gis na lu mel ñi fi doon nekk di fay xaalis ñi fi nekk doon toog si koñ bi fii nii ñun ñëpp xam nañu di yëkkati jox nit ñi ay tuset di yëkkati jox nit ñi ay ceeb yaakaar yi mën nañoo jënd lan leen def bii passé rek moom la leen di defaat bu soobee yàlla yonent bi loolu nag pour mu am da ngeen di jàppale seen doom yi seen doom yi mooy kan mooy Thié Mboxo mii seen doom yi mooy kan mooy Salimata Dieng seen doom yi mooy kan mooy Mokordu seen doom yi mooy kan mooy Zahra seen doom yi mooy Mam Alaaji seen doom yi mooy Papa Ndiaye mooy Koli mooy ñi nga xam ne tey ñoo dëkk si Grand di voté fii Aliba ak Thierno Siré ak poste de santé Grand Thiès ñooñu ngeen war a sigil ni ngi leen di nag mooy majorité bëgg cette année te pour ñu am ko nag si yéen la nekk si yéen ñii la nekk te day am ñun xam nañu lu bari ndax si ko ñu leen dëkk yàgg nañoo jël ay bus di jëlee ay nit leew na di leen transféré ñuy ñëw fii di voté ba loolu bëggee ñun mu dakk dafa dakk moo waral bii passé nii di présidentielle da leen a dóor dóor yu metti da leen a dóor dóor yu metti ñun xam nañu te yéen ñi toog xam ngeen ndax am na ñoo xam maa ngi leen di xool yéen may xool ñun fii la dëkk fii la ñu amee. dañu loolu day dakk munoo fee jëlee nit ay lew na di leen transféré plus de ay cinq bus di leen indi fii pour rien rek ñu mun laa voteel loolu dafay dakk te loolu dakk na daaw te loolu nag pour ñu confirmer ko war ni actuellement nii bàcc national bi dafa war a amaat yéen ñii yéen a ko war a def te yéen yéen ay jur seen doom yi ku si nekk am nga ñaar ñett ñoo xam ne am nañu carte d'identité am carte électeur ngir yàlla ak rasulilahi waxtaan leen seen doom yi ngeen tabaat Ousmane Sonko mu am majorité pour mun a doxal li mu bëgg si assemblée nationale. moom mu naqari dañuy ànd ak moom ndax nag sañu doom lañu am te ñu def ko ci liste bi ngir ñaan yàlla mu gañe kees gii ki ñu dugal ci list bi dañuy ñaan yàlla moom tamit mu gañe xeex baa ngi doogaa door le 17 la campagne bi. na ñëpp daas fanaanal téye seeni carte ndax li tax ma wax ko ñun bàjjenu gox yi ñoo xam ñu sonn ñi bi fi Macky nekkee nit ñi sonn nañu ku feebar doo faju nit ñi dañuy am problème hôpital yi di am problème nit ñi am problème ordonnance lépp metti tar foo wokk mu gën a tar gën a metti kon nag lan moo koy faj mooy la di 17 ñëpp nañu daas fanaanal jël carte yi xool carte bu baax bi muy ban muy Pastef duumu bu duumu bi am bi daal di dog na ñëpp wooteel Pastef ndax Pastef ca kaw ca kanam waaw képp ku mënti dugg jëla parti Pastef moo wóor te moo fi ne ndax yaakaar naa ne ku la jàpp jaam di la manipuler di la sonal rey sañuy doom rey sañuy rakk tëj sañuy doom xañ leen liberte ñu xeex di xeex di xeex di xeex ba yàlla may leen tey ndam xeex boobu dafa war a ba système bi ñu suul ko système bi deewagul moo ngi dox ndax sàcc yi am xaalis lañu kon sàcc yooyu nag dañoo war a xeex ak ñoom ba suur leen carrément doo gàmm na taxaw nag te di set nag damaa bëgg na ñëpp daas fanaanal nit da ngay yeewu jour ba ñu campagne gañe am na lu ma waxoon école R Sandayasu dañoo gañe taw bi soob ma yuuxu ni yàlla sang na Sénégal tey buumu jaam dog na tey yàlla ànd naag sonk ak i njoñam tey yàlla ànd naag ñun ndax ba muy taw xiinul ba muy taw nekk ñu woon ci nawet kon foofu yàlla wane na boppam li si des mooy ñun ne ñëpp préparé daas fanaanal téye seeni carte sànni ñoo am lu ñu bëgg mën a defar réew mi mun a defaraat hôpitaux yi mën a duggaat ci santé yi mën a defaraat éducation bi waaw Babacar boo demee neel Sonko waaye kes ñëpp dañoo topp ci ginnaawam Aïssatou Dramé muy jigéen du mën góor jigéen bu sonn man duma bay de waaye bu nee bay mooy dem man du ma bay ndax am naa lu ma doy bay teere bi doy na ma bay waaye bu nee bay ay sotu mii mooy dem ànd ak ñoom dees buñ nee waaye école barki démb moo ci nekkoon lu ñu wax mooy jiitu jog dem kon ma bëgg dangeen ko xàmmee jàppale ko ndax nit bu la nekkalee ci naaj bi yow tamit fekk si ko si kër gi jàppale ko jàppale leen seeni nit jàppale leen seeni nit waaw ñoo ngi sant ci yéen nag bu baax di ko gërëm bu baax a baax may santaale Ousmane Diagne ndax man moom laa daan àndal di campagne da daan gaare oto sama buntu kër ma dugg ànd ak moom dem campagne ko muy maire bu am jom bu bëgg koñam bu fonk koñam